am na ñu ma dégg ñu naan kalaara ak Doro Gueye danoo tas ah ah Clara mus sa tas damay ñëw ci ci Clara ba pare doog ko ñëw ci rek dama ko bëgg def point par point ngeen mën a comprendre cas bi. dama am ñu ma gis xam nga moom gars yi kaa la topp dañuy téeli téeli rek duñ déglu information duñ topp aadama dañuy téeli téeli rek xamuñu leen ñuy wax bu ngeen ma dégloo di ngeen dégg ay dëgg man bu ma neexee nag def ko ni ngeen koy defee man naa ñëw ci côté far fa man naa ñëw ci côté Karaara kenn deful ma ci dara mais man naa far fu ma ci neex mais man dama leen di wax lan moo logique ak lan moo nekk dëgg pour ngeen bàyyi seen xel yi bañ a jaxasoo moo tax waaw mais bu ma neexoon def ni ngeen di def naan aaway lan takk ak ñaareel nga jël place ak ñu kenn xamul Clara ak Doro Gueye musuñoo tas dëgg la nag amoon na ay problème yu ci xewoon ba ni jàpp ban jàppee dooro Gueye ay quelques problèmes yu ndaw noonu rek doon problème mu dara ay kat saata yooyu la koy italien di wax mais tas mus sa am Clara ak dooro ànd nañu fu ne kër Doro gi nekk France sama kër papa Doro bi nekk France du ma wax kër gi fi mu nekk nag ndax sénégalais dafa soxor Clara mooy gérer lépp ku fa dem doo manqué añ doo manqué reer Clara la Doro Gueye jël ak ko ci kaw defal ko lu mu defalul kenn loolu man maa leen koy wax tey te man sama bët laa ci teg nee naa la man kii sama xarit la sama papa sama nit la xam li mu séq ak Clara yépp ndax man gis naa Clara ànd nanu xam naa ko ñoom ñaar ñëpp laa xam dinaa leen wax benn affaire nag am na vidéo yoo xamante si nii bis bu génnee ngeen bàyyi àdduna génnagul nag mais mi ngi ci yoon bi léegi nag rakki ay dara ak ki nga xam ne moom mooy Doro Gueye dëgg la maanaam rakki dañu koo takk takk nan ko ci faratas yàlla ak sunnas Muhammad mais takk gi dafa fësul xam ngeen lan moo tax takk gi dafa takk gi dafa nekk takk gu discret maanaam yéen da ngeen di jaawale maanaam Sénégal dañuy jaawale takk suuf ak nit koo xam ne dafa discret comprendre nga Sénégal day jaawale takk suuf ak nit koo xam ne dafa discret na un lii ba ma koy gis ci téléphone dooro ëpp na sax un pour wax leen dëgg rek bu fekkee dëgg rek moo neex yàlla lii ëpp na sax un foto yi ngeen gis nii ak vidéo yi Euh, Doro Gueye ba mu takkee ki nga xam ne moom mooy rakki ay dara ak tay un an lay tollool walla mu ëpp ko tuuti vidéo yooyu ngin gis yépp xasaa toog naan nii ay ay ay ay rakki ay dara naan nii xasaa nekk ci wet gi ba ma koy gis man Adama amul ku ci teg sa bët ci biir Sénégal barki Serigne Babacar si ëpp na un an Serigne Babacar nag laa waat un ëpp na ko léegi nag léegi nag kaay ma wax leen de Doro nu mu dencee ay vidéo ki nga xam ne moom mooy ay dara denc ay photoom maanaam publier wul dara ci mariage am comme si que dañ koo takk-takk suuf jël Clara fësal ko mais loolu ay dara moo ko waru woon nangu parce que ñàkk fayda weesuwul ñu takk la ci faratas yàlla ak su sunnas Muhammad nga bañ ne kenn du la publier say foto wurul génn kenn wërta yëg takk gi trois ans ngi nii rek ay dara di dawloo sénégalais yi trois ans xawma quatre ans quatre ans ngi nii xawma trois ans te man yëgoon naa ko bu yàgg doora bam dalee jël rek ay dara dafa yàgg de ñoom ñaar génn na lu mat bu mu trois ans wala quatre ans mu doo koy takk léegi nag ndax xaalis moo ko ci dugal wala xaalis dugalu ko ci ci point boobu dinañ ci ñëw léegi déglu leen ma wax leen bu baax rakki ay dara danu ko takk mais takk gi lan moo tax mu xaw a nuroog takk suuf rek mooy fësal bi ñu ko fësalul mën na doon description la parce que dooro dafa nekk nit ku siiw te ba pare kalaaraa tamit ab dof la de Clara kaay ma la de wax jee fi nekk de mais xale yi ñemewuñ ko de barki Serigne Babacar si fala ruuma ko de xale yi ñemewuñ ko de ab dof la kalaaraa moo leen ëpp ay pexe gën leen a baax ay bopp kalaaraa maa toog Doro Gueye toog Doro ne kalaaraa mii lépp lu mu soxla ci samay bain ak samay xaalis ak sama alal bu ma laaj bu dee ay milliards la na ko génnee ba pare doogu may tàggu Clara ak dooro am nañ vidéo yoo xamante si nii fi nu ko tourné laa la wax de xam nga man fii damay gis ay vidéo Maroc yooyu fi nu tourné vidéo yooyu noonu bu génnoon vidéo yooyu ba tey génnagul maanaam yéen dafa am vidéo yoo xam ne nii gisu leen ko takk Doro Gueye ak Clara dafa am lu ci des lu wonoon a fës te fësul te xam ne bu génnoon Sénégal day toj wala dooro dootul xajati Sénégal wala ñu bëri dinañ waxtaanee dooro video yi ñu def ci code barke Serigne Babacar Sy ba tey génnul te xam naa nag ci génn la jëm vidéo yooyu li des ci cas bi moom. Doro moo nekk nit ku discret moo nekk nit koo xamante si nii ay mbiram noonu la koy defee mais ay dara mënu leen a wax a wax a wax a wax moom ba mu nekk aawo ñaareel la Doro géey kalaanaa ko xame mu takk rakk ay dara takk goo xam ne dama daf ne ko bu ko kenn yëg takk gi bugguma mu siiw mais xam nga nag buñ ko mais nag nan sant Seydina Ousmane Sonko ak ki nga xam ne moom mooy yi bu jëlul woon Doro Gueye ñaanu mu ko yàlla ndax kenn yéenu mu ko dugal ko ci kaso bi takk gi ba ba ngeen dee du ko xam foofu la coow li commencé parce que ku ne mbëggeel xolu mbëggeel mooy génn du aawa de ñaareel la kalaanaa mooy aawo moom mooy ñaareel rakki nag dafa nekk ñaareel boo xamante si nii ah moom li ko dal lépp moo ko yóbbee boppam rakki sénégalais yi ba ngay sinap ñi ngi naan la Doro géey ngay daw res naan ay grand frère rek grand sœur sama càmmiñ sama mbokk ba nga waree dëggal sa bopp moo yàgg ba nga waree wax ne man maay séeri Doro Gueye takk nan ma moo yàgg nga nekk fii rek di daw di dofloo Sénégalais yi di daw di dofloo Sénégalais yi ba tey nga mujjee fii ci profité ay publier ay photo parce que Clara dañ ko war a démarrer waat remariage nga dem njëkkante publier ay photo mais photo yeeg vidéo yi ak a ñoo yàgg nee naa leen bu matul un ëpp na ko man ba may gis photo yi di gis vidéo yi kenn gisu ko ci yéen yéen a ngi ciy doog a jot dafa am nag lu xew surprise bu mag boo xam ne duma ko wax ci live deme laa koy live loolu kalaaraa gis ngeen lim leen defal ci kiyam nee na leen na làmp yi tàkk na leer est-ce que xam ngeen signe boobu lan lay signifier ma wax walla ma noppi lamp yi na tàkk la leen wax kalaaraa walla ma noppi bàyyi leen ma noppi ba suba noo bàyyi leen ma kal ko ba suba bàyyi leen ma kal ko ba suba xam nga lu tax. Euh, maanaam dafa am lu bari loo xam bu ma ko waxee rek ah man na gaañ doolo te bëgguma luy gaañ dooro barki Serigne Babacar Sy dafa am loo xam ne bu ma ko génnee rek mën na ñëw ci euh, dafa am ñaari kàddu yu ma bëgg a wax maanaam dafa am loo xamante nii dafa am kàddu yoo xamante si nii bu ma ko yëkkatee rek mën na gaañ doolo dafa am noo xam ne bu ma ko waxee rek mën naa am dooro du ko rafetlu mais lii xew yépp da ngeen ci teg seen bët te bu subaa dinaa live incha allah waaw bu suba dinaa def live mais bala maa live suba da ngeen di xaar bal bi tàkk ndax durante guddi gii nii jàpp suba lu lumière bi day tàkk maanaam làmp yi day leer nañ su ko defee ma live am lu ma leen mën waaw parce que dooro doo da non da ngeen may déglu ma wax leen da ngeen may déglu ma wax leen dooro géey sama xarit la maanaam sama nit la te nit soo ko bëggee doo bëgg lu koy gaañ bu ma dee wax ci moom sax di wax sama diggante moom day mel ne damay wax loo xamante si nii comprendre ga mais lu bëree bëri lu nu war a wax su ma ko waxul tey pour mu gën a leer sax yàlla ak ji moom ji moo tax mais li ma xam kenn xamu ko. cas bi li ma ci maîtriser kenn maîtriser wu ko waaw ay dara fépp fu mu mosoon a ànd ak Doro avant mu koy takk xam naa ko fan ak fan lañu jaar avant mu koy takk xam naa ko lan moo ko dugal ci Doro Gueye xam naa ko fan lan njëkk a gisantee xam naa ko ak lan moo waral xamante ba ak fan la commencé man aadamu waaw bande annonce bande annonce te nag rakki rek rakki rek ngeen gis de ak Clara mais coow li est-ce que xam ngeen ngi à tout moment benn influenceur mën naa génn dëggal boppam à tout moment jàpp tey ak suba nit dina génn ku siiw dëggal boppam ci coow li parce que taq na ci ripp moom tamit lépp ci discrétion lépp ci discrétion <laughs> gaa yi wax baaxul xam nga rek wax moo baaxul rek comme que nee nañ ñu noppi. nan noppi rek di seetaan rek ay dara ak kalaaraa ñu koy joxante ci sinab bi non mais Dora sama gaayen la quoi sama xarit la barki Serigne Babacar Sy il est mon ami moo tax moo tax sama xarit la quoi sama xarit la naa bàyyi noonu rek naa bàyyi noonu mais billaahi sama waay la quoi sama xarit la <laughs> laa ilaha illallah leen da xamal laa leen ko hmm. man naa xam nga doo may pare problème bu ma coupéwul bu ma coupéwul dinaay def ba wax fi aw tojaange def fi loo xam ne waruma koo def noo faaw ma coupé faaw ma coupé quoi jox leen rendez-vous deme faaw ma coupé lii daal laal ni ñamal mooy bu demee ba mu yàgg nii diggante tey ak suba hmm? coow li dootul nekkati rakk ay dara ak kalaanaa kese waaw hmm. te nag ay audio dina génn ay vidéo dina génn ma tegal leen ci mën naa leen a jox sax ay ay ay quelque kii mais loolu day day day day day day kii day baaxul daal baaxul waaw léegi nag euh, bu ma coupé maanaam su ma coupé sama live bi coow li day bëri door mii moom yenewuma ko coow yéene ko mu nekk jàmm li ko dal rek dafa doy mais kay papa Doro yàlla yàlla guddal sa fan décembre la mais Doro li ma gis nii ak liy waaja xew ak liy waaj a ñëw yàlla na si yàlla defal jàmm rek yàlla na la si yàlla defal jàmm waaw Clara moom sant nga ko gërëm nga ko man toog naa nga sant Kalala ci sa kanam toog naa nga wax Kalala loo bëgg ci samay bien jëlal toog naa nga wax Kalala ne ko sama xaalis loo ciy jël bu ma tàggu maanaam sama alal sa alal la defal ba pare doog may wax fi nga teg Kalala moom tegoo fa kenn loolu wane nga ko te man xam naa ci dara parce que fa nga am kër ca France di Champs-Élysées amul benn milliardaire bu nekk biir Sénégal am fa kër ca Champs-Élysées Clara dirige kër ga seere ko waaw diri sa kër gi seere ko mais naa coupé suma ma du baax suma ma du baax non naa coupé naa coupé euh, léegi na gars yi di laa leen jox rendez suba de bu changement amul ci diggante bi ndax à tout moment samay kilifa laay waxal ma nan maa woo walla xam nga message ma bu changement amul ci diggante bi suba dinaa live te bu ma laay fee suba nag fi mu toll nii waxuma ci kaa de dama leen doon junju nii rek maanaam dama doon wax di leen di leen junju di leen di leen tegal ay kii di leen leeralal takk gi takk gi xam nga tey leen koy doog officialisé maanaam tey la rakki dëggal boppam génnee foto yu mu photo woon ak vidéo yu mu defaroon Doro depuis daaw maanaam un an un an un an ak ak euh, bu mu un an wala ay un an ay onze douze mois wala treize mois yooyu daal quatorze mois jàpp quatorze mois photo yi vidéo yi loolu la mi ngi koy doog a génnee parce que la li tax mu génnee ko mooy li mu yëg ne maanaam Clara day remercier waat mu officiel xam ne moom muy wane ne moom dañ koo takk looloo tax mu génnee ko noonu mais génne boobu noonu yépp mu ko génnee madam Clara dafa am beneen façon bu muy ñëwee madame Clara dafa am yeneeni i pexe madame Clara hmm, gars yi damay ragal ngeen am gàcce nag yéen a ngi faralaate rek man faraluma kenn man ci dëgg laay dox yéen a ngi faralaate rek parce que da ngeen a xamul moo tax <laughs> maanaam da ngeen a xamul li xew barki rasulullah gis nga bu ngeen xamoon li xew nii ngeen di def toog rek déglu aadama mu leen di informé ngeen bañ a dugg ci ay détails parce que bëgguma ngeen di bàkkaaroo ay mair yi danoo màggat ak mayul ma mair yu màggat yu mel ne Kanaara ah mayul ma ay laa ilaha illallah fop pop pop pop pop yëgu leen li xew de bu bu gàcce amee nag ci côté rakki lay jóge mais nag rakki moo tooñ boppam xam nga lu tax parce que rakki rakke li koy dugal ci doora ba tey waxuma leen ko de parce que dafa am lu may seet maanaam dafa am li ma war a wax moo bari loo xam ne man xam naa ko ba tey yéen kaa bi ba tey xamante bi xamu leen fan na de ba tey xamu leen na mu demee xamoo yan façon visite lan dem su ma leen waxoon ay dara président Macky Sall moo ko ñaanali da ngeen ma gëm maanaam président Macky est-ce que xam ngeen ne ay Aïdara mii ak Doro am nañ ay vidéo ci biir pale bi pale de la république bii ay video yoo xam ne nii génnagul ci biir palais bi lañu tourné photo yi fa lañ ko defee lépp ci biir palais bi la xewee waaw Racky benn yoon la mas a dem Italie ànd ak Doro Gueye te service bu fa Doro doon doxe la ci président Macky Sall wala ay partenaires yu waroon a ñëw seeti ci président booba man nii maa nga Paris te ngeen a tey ci man li ma xam a bari de. waaw ah, waaw te fa nekkoon ci hôtel bi xam naa ko fa nu woon xam naa ko la fa xewoon xam naa ko nu mu demee ba mu jógee Paris ndax dafa jaar dubaay wala daa jaar Turquie xam naa ko waaw kër Doro Gueye gi nekk Paris Champs-Élysées rakki ay dara mosu faa tànkam xamul sax fi kër gi nekkee ci change élysées ñu néew ko xam ci yéen kër gi ña fay dugg bariwul bu weesoo man ñaaxarañ loo Kalifon Sall mi sax mosum ko faa gis te kalaaraa moo dirigé kër ga. léegi nag rendez-vous laa leen di jox deme ma katt ndeyu réew mi ñaan yàlla bu dara changé rek bu ma kenn woo rendez-vous deme ma katt ndeyu réew mi waaw mais li ma leen di wax ba wax leen ko mooy jàpp leen ne fot vidéo yi lu yàgg la rakki mi ngi koy doog a dugal tey parce que dafa am lu Karara di waaj rakki yëg loolu profitoo dugal vidéo yi ànduma Clara de ah ah mais jëkkëram dama toog mu gërëm ko dama toog mu fësal mbëggeel gim ko mbëgg affiché ko dama toog xool ñaari Doro Gueye carte téléphone la yor carte téléphone yépp boo ci ubbi photo photo Clara nga fay fekk barke Serigne Babacar Sy écran yi photo Clara appel da ngay gis Clara photo bi day affiché carte yépp léegi nag làmp yi war a tàkk te Clara di leen ko leeral ne leen ndax am ngeen lumière loolu damay bàyyi moom mu développer après nag ma laayi fa leen man duma wax a Clara de barki Serigne Babacar Sy rakki ay dara sànq laa ko message envoyé ko benn message ne ko man la Adamo wooma balaa ma commencé gis na message bi ñaari kàdd laa ko doon wax parce que bëggumaa wax lépp message naa ko moom rekk waaw dina gis sama message gis na ko làmp yi nag duma ci joxe indice de mais damay xaar xam nga lan damay xaar ba suba ma live ko parce que dafa am influenceur bu war a génn dëggal boppam ci xew li ak la jote xew ak moom fi mu jaar ak la ko ca arrivé ak nu mu fa demee ak fan la woon dafa des DJ Xassa nag génn ci coowu jigéen ñi xamu ci dara rakk xaritam la na yem ci xaritoo lii muy affiché nii di ci dugg xamul dara mi ngi dugg ci géer yi mu xamul sama xarit la nekkal tuuti góor bàyyi affaire jigéen yi xamoo ci dara bul faral kenn toogal fi nga toog rek seetaan man ngeen di topp doy naa leen ci information samay wax doy na leen te lu ma leen mas a wax gëm ngeen ko te gis ngeen ko toog leen seetaan aadama lim lim leen wax xam nga man damaa nekk koo xam ne du ma waxantu kii sama xarit la sama papa la ñu ànd fu ne seq lu bari man lépp lu may wax ci rek foto yu ngeen gis ak vidéo rek gis naa foto wala vidéo yu ko toog noppi te ba ma koy gis man na un man yéen a ngi ciy doog léegi nag lenn laa bëgg ngeen xam ko yéen bu leen topp kenn ci kaa bi dee leen topp aadama rek information yi leer yi man maa ko yor te lépp lu ma leen wax da ngeen koy gis xam nga bu ma leen doon wax muy denc sax ñu ne waaw mais lépp lu ma leen di wax rek da ngeen di teg seen bët gis ko da ngeen di ñëw ci man daan ne aadama waxoon na lii parce que lu ma wax man dama ko maîtriser xam naa ko bu baax. vidéo yi ñu def nan la génneel date bi exactement dugg ci sinab yi wan leen ko barki Serigne Babacar si mat na un an Serigne Babacar nag laa waat ba may gis vidéo yi Paris toog di ko gis ci téléphone kilifa gi mat na un léegi nag bàyyi bàyyi ba suba dinaa leen mayaat ci kaa bi jërë ngeen jëf parce que bu ma waxee rek dina ëpp te dinañ ma woo te loolu laay bañ te kii sama xarit la kilifa la naa noppi rek jëri ngeen jëf